soxna ci ça va. ça oh, va. pardon nga baal ma de sa kanam bi laa gis rek mu xaw a triste mbaa du dara. Ah, problème. problème comme nan. bàyyi mu sedd rek. non wuy ma man sa góor laa xëy na xamoo ma xamuma la mais yërmaane bu ma am ci jigéen moo tax bi ma gisee sa kanam bi xam naa ne y a quelque chose s'il dama la ko ñaan rek wax ma lan la bu fekkee lu ñu war a mën a jàpp la ñu def ci lu ñu mën parce que jigéen nag waruñ ko setaan muy. yor comportement yi te xam nga dëkk bi neexul yaay booy wax ma lan la. loolu daal su ma sañoon sëñ bi du ci wax bàyyi rek noonu bàyyi rek mu seetlu. Ah, su ma sañoon wuy ma. bàyyi noonu rek wuy ma wuy ma wuy ma wuy ma yaay booy bul yenu stress ba mu lay yóbbee lenn yi yaa ngi may dégg àdduna bi yëpp féppoon metti da ngay ànd ak xolu muñ ak ma lu la mën a dal na comme nangu woo ma ko wax gis nga lii. bariwul jàpp si nga dalal sa xel. dégg nga na la yàlla defal jàmm. soxna si na looy jooy lu xew ah. problème rek. problème la dañ la dóor. déedéet. Ah? yow tamit bu jooy jigéen du jooy du nekk ci mbedd mi di jooy nii comme ça ah oh masawaay ah lu la dal da feebar. Ah, loolu kay bàyyi rek mu sedd mënu ma ko expliquer. ah nga nekk ci mbedd mi nii di dox di jooy nii li tamit rafetul ah. mënu ma ko wax kenn. ah oh, massa waay massa bu la dara dal waay soxla si bu la dara dal massa oh massa massa massa ah, fu lay metti déedéet fenn métti wu ma. ah xaw oh, massa waay massa defal nii nga dallu reposé tuuti ci moom dara ah, baaxul looy def loolu ah. te ngaa dugg ci biir toog reposé tuuti ma defaral la ndox bu sedd nga naan ak yooyu. waaye ma dem rek. déet tamit parce que instant bi problème yi nga am nekk ci mbedd bi nii di dox il faut nga il faut te reposer yaa ngi dégg man maa nii dafa am ku ma doon xaar sax mais je m'engage. nga dugg ci biir toog ma defaral la ndox nga naan boo bëggee café ma defaral la café tu vois bu ko defee nga mën a reposer wu ah, fàtte souci yeeg yooyu moo gën nga nekk ci mbedd mi nii di jooy di wër di dox rek lii amul benn problème ah loolu moo gën n'est-ce pas. xanaa ma reposer wu rek tuuti. waaw nañ dem nga reposer tuuti rek t'inquiète pas dégg nga noppil dégg nga noppil noppil jërëjëf kaay dugal nii. dugal. noo ko ko gisee ah. waaw célibataire gu metti képpal mën na laa stressé gis nga jigéen boo tollit ci sëy ah amoo waxaale amoo da ngay stressé stress boobu mën na laa jàpp waaw fi mu toll nii moom sant naa la bu baax waaye nag ñaari célibataire daje de <laughs> maa la waxal lii de damaa dëgër rek waaye ma naroon naa stressé bu yàgg wallaay mais nag lu dégg yii baaxul waaw bu ay nefi ci mbedd yi di jooy waaye léegi sa problème sax yow lan la woon carrément. ah loolu daal man bëgguma ci wax waaye. non mais wax ma rek yow tamit nag yow fi mu toll nii dugal naa la reposer nga dallu nga stress bi dem na léegi nag na nanu waxtaan rek nga wax expliquer ma bu dee lii mooy problème bi sama kër a ngi nii mën naa laa jox sama numéro de téléphone yaa ngi dégg boo taxawee ci angle bi rek boo geesoo xam ne yaa nga fa bu ma la piché rek nga dugg médecin laa de ma caaxaane de. waaw daal ma la stressé. waaw amoon jëkkër dëkk ba. ah da nga amoon jëkkër. Oh. léegi xam naa maltraitance yi lan la jàpp di la liggéeyloo di la yóbbu ci tool yi. du loolu sax. yàlla boo ci dajeeg ñooñu nga xam ne du duñu wàcc. ñoom daal bëgguñu ma. tey oh. fameem ma bëgguñu ma léegi nag ba ma tàggoowee ak moom. Oh. mais ma loolu du dal da ngeen a kañ ngeen tàkkal idda ji baa jeex na. sonal loolu sax mu neex ñu sànni ma loo xam ne. bu bu léegi far bu ma am daal su ma ko sekkee ak yow rek dans une heure de daal di faatu maanaam <laughs> dangay génn àdduna loolu daal moo may stressé dama stressé wu. comme ni ñu ko seq. une heure rek su ko amee waxtu daal day génn àdduna. <laughs> ban heure tàmbali woon. amul xaw ma xoolal heure mooy quinze waay. Moleques! Moleques! Ah! Moleques! Ai, ai, ai, ai.